asalaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye Info TV tey ñu ngi fii Guédiawaye seet si un grand champion mu nekk Boy Niang école de lutte Balla Gaye mu doon ndaanaanu làmb ko am teen kenn doot ko présenté damay faral di wax ni bëri na xale yoo am teen day bëreek ñoom ñu jox leen favori mais bu ñu demee ba si cëppaandaw gi mu jumloo leen ndax xarañ xarañteem ci wàllu bëree mais aussi ni nga xamante ni noonu la faral di di di di ñëwee ci ay bisam mu nekk champion bu am teen tey kenn ko présenté wu ma daal koy bàyyi rek mu daal di nuyoo présenté wu ak mbokk internet yi salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu monde entier du nuyu ñëpp di la nuyu yow di nuyu suma rakk orka di nuyu di nuyu ñu ma fekk ñëpp daal maa ngi nuyu àdduna bi yëpp waaw di leen ziar. waaw champion kan mooy Boy Niang 2 école Balla Gaye. waaw Boy Niang mooy benn Baye Fall rek benn nit koo xamante ni wàcce boppam ba oyof quoi nekk nit koo xamante ni tamit nag xam lu mu am ci làmb xam nga mérito na ko waaw. Ah, ñu gis aussi ni ñu bëri ci mbapat lañ la xamee dem na sax ba màgge seeki moo gën siiw sa jaar jaar ci mbapat nan la sama jaar jaar si mbapat yow xam nga yow bi ngay nekk xale bu ndaw di ma mbapat waaw mooy loolu sama jaar jaar si mbapat mbapat moom bëri naa 49 combat mbapat 8 défaite ama balde moo ma njëkk a daan mbapat waaw mbapat moom dama ko sama loxo ñu bëri mbapat lañ ma xamee ma di bëri mbapat ba mujj sama boy koñ ni ma mbapat doy na quoi rek si laa arène waaw ah, ñu faral di dégg aussi ay mbapat bu ci mel ni mbapatu Père Brahim mbapatu Aline Sey ak lamb tukulóor lamb yooyu est ce que jot nga cee jaar. waaw lamb yooyu jaar naa ci waaw bëri naa mbapat nome bëri naa mbapatu mbapatu ah, buñ teg dara waaw yooyu yëpp moom wane naa ci sama bopp bu baax a baax a baax si wàllu mbapat parce que mbapat moo waral tey ji su ma bëree arène muy yomb nii quoi mbapat moo ko waral. combat yi nga bëree mbapat ban moo la ci gën a marqué. waaw bi ma bëree mbapat euh, man ak kii. Euh, ben boy bu nekkon ikir yek ni combat bobu moo ci gëna neex quoi parce que koku daf ma upp doole bind ci ay tisetam prib deet dafa defon ci tiset bu arbi sifreer daf may daan ñu bëre lamb ju metti ma daan ko lamb joj moo gëna neex ci samay lamb waaw bu loolu wesso nga daal di bëreem ba pat marque sa empreinte donc ba ñëpp daal lay xam nga am ci benn tour bi ñëw daal dugg ci li nga am tane moy mooy avec frappe mu nekk bëré arène donc ban année nga commencé lutte avec frappe waaw 2005 2006 la bëré arène waaw mais ana boobu dama ensonné ñetti combat laa si bëri xawma ñeent waaw yëpp ma daan ko waaw 2006 dama bëri quatre combat daan yëpp waaw boobu Zac Diène moom yoroon yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana waaw. ñaata combat nga am sa palmarès. waaw sama palmarès bëri naa 26 combats 6 défaites waaw. 20 victoires. waaw ba am naa 20 victoires waaw. waaw bu ñu revenir sa carrière aussi ñu xool ni donc bëri na ay jafe-jafe jamono ji ñu toll mën nañ sax ba tu as dit mal donc à nga tegale deux victoires de suite loolu am na ay jafe-jafe trop ci wàllu sa carrière loolu lan moo ko waral aussi. waaw mais loolu làmb la 2009 dama toog 2009 ba 2019 ma bëri ci treize combats perte ñaari treize combats laa si bëri perte ñaari te boo yi gën a dëgër man maa leen daan waaw si yoon la ma perte combat yooyu parce que dafa tolloon boobu entraînement yi tar lool affaire yi metti woon lool waaw. mais nak alhamdullilah quoi fim toy ni mom xama amna fanen fo xamanteni fofu la tek sama beut quoi ci lampe waaw ah, ba lol sa waral na ba ñu bëri sax dañuy faral di wax ni donc ki nga xamanteni moy moy mooy màgget euh, dafa déssé séré ci entraînement lol mo waral combat yu bëri yu ñak war ko ñak waaw ah, de man mom ku xam ci entraînement lama xamé suma démé tay ji bay daan boy gëna dëgër ci lampe ji entraînement liggéey bu metti la man damay liggéey liggéey metti ta bo seetaanee démb ba samedi bu le passé sama boy bi bëree nga xam ne carrément liggéey rek ñun la ñuy def waaw. waaw mais sa diggante ak qualify de coow bëri na ci trop ñu ñu daal di anam bi nga xamante ne moom nga ñàkkee ñëpp daanu ku nekk xam na ne booy ñaali daanu ko mais dafa parewul jour boobu. non man a qualify de li ci laxasu dafa bëri parce que combat bu dafa fekk xam rek yaa ma gën a xam ma pare ay combat yu metti ba nuppi feebar. waaw loolu lol loolu la làmm moom bu la daanee sax xama doo nekk di wax ko mais boo xoolee qualify man ki nga xamante ni man maa ko daan moo ñëw fooyee qualify keul keul dafa ñew daan ko li fay ñaar yoon ci ci ben ci ben takusan te loolu kenn musuma ko def ñew fowé ko te keul dama ko téye tenir ko japp ko daan ko nga wara a lamb daal nit dina daan ko xamanteni ni la man non la démé kon mun na jàpp ni sa combat ak Colifay 2 dafa bëri ay paramètres ak ay problèmes internes yoo xam te ne moo ci laxasu woon. non Colifay mom Colifay mom daan na ma ñi man ñaar ñima daan daan nañ ma mais ñu daal ñu mom vraiment vraiment daan nañ ma mais tànguñu benn mooy loolu kulifay moom gis na ki ma bëreel daan ko gis na ni mu def kulifay waaw keneen ki moo ma daan mais sama poulain maam bàllaa ko daan temps yi lay passé waaw ah, dogu ma la mbër mais boo nee tànguñu est-ce que ñoom duñ jàpp ni da ngay a xajamal wala ngay salteel seen victoire non pas parce que kéwal combat yu mbëri yëpp li mu yan li mu yan li mu ko yan moom mu mu xàddi moom la ma kéwel yan ma dégg ko kon nga war a xam ne làmb yi am na lu si jaxa laxasu chaque dimanche nga gis ku daan ki ko mën chaque dimanche nga gis loolu waaw mais làmb nag xam nga ñooñu ma daan yàlla na leen yàlla yàlla na leen jik quoi man ñi nga xamante ni maa leen daan yàlla na ma jik quoi loolu laay ñaan fu mu toll li sama kanam laay xool waaw. bu loolu weesoo ñu revenir aussi un peu ci sa dernier combat eh, sa digënté ak nongolo eh, ci wàllu préparation ñu gis ni donc dafa mel ni yow li nga ñëw école du lutte Balla gay bëriwul préparation lu bëri fi nga ko accentuer mën nañu sax eh, ay ay ay yenn mbeur ku ci mel ni Alioune Seye numéro 2 ak wa écrit waal nga ko gën a waajal ko wa école ba lan mo war a doon loolu man maa doon dem école ba chaque jour chaque jour maa dem école mais Alioune Sey 2 ñoo bokk benn koñ ñun bu ñu dafa am auto boo xamante ni moo ñu yóbbu entraînement ñun fajar gi ñu tuddee ko Mafia Kara fajar googu au passage maa ngi nuyu Alioune Seye di ñaanal Alioune Seye junior na ko yàlla may ndam ndam lu yomb te te gaaw ci kàttanu yàlla parce que fajar gi dañ doon def man ak Alioune Seye rek a doon dem ñu dem ba si biir ma Alioune Seye ni ma pourquoi mënuñu woo booy di leen jiite di dem mu nekk initiative boo xamante ni lu rafet la ma ne ko waaw léegi si la ñuy demee ba Kara jël otoom di ñu yóbbu suñu benn père bu ñuy wax Kara yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér lu mu yoree ak njabootam ci kàttanu yàlla mu nekk nit ku baax chaque fajar mu du ñu yóbbu ñuy nekk ay dix dix personnes dama bay nekk quinze léegi dem nañ ba ñaari oto ñu yóbbu loolu sant yàlla kon ça diir dire que mooy xama loolu daal lu nice la ko quoi ñu ngi wax Alioune Seye nag ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko combat moom si ndam ci kàttanu yàlla waa loolu rek mu ñun moom lañ ko deseel quoi di ñaanal ñi nga xamante ni ñi ci mafia bi am combat yàlla na yàlla suturaal ku ci mel ni Macha. yàlla na ko yàlla may ndam ku ci mel ne dund yàlla na ko yàlla may ndam ku ci mel ne yeneen mbër yeneen mbër yàlla na yàlla suturaal Alioune Seye junior yàlla na ko yàlla may ndam parce que grand combat la te làmb ji muy bëri géejawaay daf ko soxla la nekk waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam quoi noonu la demee. Ah, bu loolu weesoo nga daal di am ndam ci kaw ki nga xamante ni mooy Ndongo Lo mu doon xale boo xamante ni macha allah am na tur ñu bëri ñu ngi ko doon bàyyi xel euh, nga am ndam ci kawam boobu ba léegi nga toog di xaar toogaay bu yàgg bi lan moo ko waral. nongolo bo seetaanee bimu mu ci si galaa bi ñu daan ñep da leen indi ay difficulté ñuko daan ñep da leen tek da leen tegal bëre bu teeng man ma xamni nongolo il faut ma pour ma corriger ñale rek il faut ma ñew bëre bi tegal ko ay argument yo xam yu leer la motax lamb joju mu ñew ñëw ko bëriwul xéxul mu xéx mu duma ko mu ñew bëre ci ma daan ko bobu dama doon wan ni sama combat mëna a dama joom te nongolo dafa daan qualifié waaw kon nga wara xamni gis na lamb nongolo dafa daan kulifay man ma ñëw taxan kulifay man ma ñëw taxaw nongolo yagul kon kulifay daal lamb mi ngi si kanam quoi xëy na lamb dinañu mës a boole mais kulifay tàngul billahi wallahi wa taala tàngul su ma la waxee tàngul rek am na am na lu tax ma wala tàngul waaw mais lamb nag xamam loolu mënu si ñàkk quoi mënoo daan ñëpp man dama tegale 2009 ba 2000 ba 2019 ma bëri si 13 combat booy gën dëgër laa daan kon lamb nak mënut a fi fii làmb kenn mënu see tegale trois victoires ko ko si tegale wa ku si bëree bo daané bi di ñëw dal lay daan wala nga daan ñu daanar ñu daan la mais nak lamb non la may ñaan xam nga way gépp ñu ñëw jappalé ma xamni ne man lamb moom amna amna fuma na sama bëtt te billaahi wallaahi fa yegg carte kàttanu yalla parce que ragalu ma su mu neex suma bako mu neex amateur yi bëgg nañ ma musuma bëre làmb joo xamante ni feesul làmb ji may bëre ba grand combat bi làmb ji day fees dell kon loolu sant yàlla am na lu ma wane si làmb muy jom ak fulla ak fayda te loolu moo nekk sama deret noonu laay dundee ko yow xam nga ma bu baax ñoo yarandoo waaw man chaque jour rek fulla jom fayda man bëgguma bëree làmb sa ñëw xeexu xeexuma bëréew ma ñu daan ma comme sama combat mën a qualifier daf ma metti combat bu moo ma gën a metti sama àdduna parce que dama ñëw amateur li ñu doon xaar ci man defuma ko muy lan man boo ma daan daan sax dañuy bëri bëri metti métti xeex xeex bu métti su ma demee lekk xaalis bi xam ne lii lew na ma waaw noonu la demee quoi. waaw kàddu yi am na solo mais boobu ba léegi bi nga amee ndam ci kaw ndongolo dégguñu sa benn combat daal taxaw problème d' adversaire bi ci côté adversaire yi la wala côté promoteur wala yow ci sa côté la. non man sama côté man léegi man maa bëriwut ak benn boy sinon ma dem liggéey man làmb apporteru ma dara lamb aw ma si dara lamb au contraire damay dajale sama xaalis ba lamb sama lamb ñëw ma defaat ko ci kon lamb man awma ci dara comme que yalla def na nak man fi mu toy ni si lamb fu sama morom taxaw ma taxaw fa kon legi man sama lamb dama am fu leer fu makoy tek ta dafa am ño xamanteni dañu nekk man ku ci mel ibu ibu njaay koku sama gain la mo woron tew tay ci émission bi koku suma xarit la suma gain suma amé combat ci japp waaw da ci japp di ci sonu di ci daj lu nekk otoom lay jël dawal ko and ak man ci all bi di auto yi di auto bi pan kerve def lepp mu and ak man ibou ndjay ma ngi koy sant di ko gërem waaw di ko ñaanal lu mën ren yalla mën dewen lu ko ëpp ci kàttanu yalla waaw ambeur mais boo nee lamb apporté lu ma dara est ce que nekul da ngay jéem a gaay rek parce que ya nga may combat ya nga bëré di fay ko ay cachet man lamb ju boy ndaw yi bëreel te boy ndaw yo xam nga ni caaxaan daanu len boy ndaw yi daanu len man suñ ma fayé ci lamb par exemple cinquante mille naa jëlaat sama cinquante mille def ci ndax man bëgguma gàcce man làmb bëgguma si gàcce dama bëgg def la def fayda su ma génnee ku ma xool ma xool la man loolu laay re sama àdduna looloo ma dese ci làmb waaw dem ba bu suma ma bàyyee lii may def nii ku ma romb ni kii ku am jom la waaw. am na solo kon suma la déggee rek toll nga foo xamante ne instant yi doo jëlati benn booy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ponkali ñoo nekk ci kaw ñoon nga bëgg a affronter. waaw waaw waaw fi mu toll dafa jot parce que ñooñu man ak ñoom ñoo waroon bu làmbooxoon dëgg ñoom ñooñu ma leen dépassé wul duñ ma bañ. ku ci mel ni kan ak kan. waaw ku ci mel bëri na waaw ku ci mel ne kii mën na ñëw ñu bëree nu mu euh, ki nekk lamsaar tijaan kii fëgg la mën na ñëw ñu bëree naaru sokaas mën na ñëw ñu bëree naaru sokaas mën na ñëw ñu waaw ñaari mbër yooyu mën na ñëw am ñu combat ñu ñëw ñu bëree. na la aussi nga tudd ku mel ni Yékini ci loolu ba tey wala. ku ñëw baax billaahi wallaahi wa taala kañ nga xam ne man mbër laa ma bëree ponkal yi xam nga ne booy yii may bëreel di ci def lii ponkal yi ku ma si am billaahi wallaahi di nga xam ne carrément mooy loolu te yow xam nga si dara man loo gën a rëy gën a dijji gën ma neex billaahi wallaahi booy sax ñoo may indi ay tolof tolof ay ay benk ñenk nii parce que mooy loolu billaahi wallaahi. mais bëreeg ñooñu est-ce du laaj nga yokk masse bi tuuti daal di yokk tuuti volume. non non man nu ma bëgg toll noonu laay toll. man su bu ñëwoon tey ji su ma doon bëreeg mbër yooyu su làmb ñëwee ma maa leen a ëpp maa nu ma bëgg mel noonu la man damay liggéey sama liggéey du ma naan doom du ma naan comprimé du ma naan dara damay liggéey damaa ñeme li may liggéey billaay wallaay wa taala damay liggéey lu teeŋ te damay am doole te duma ma tàppet waaw maa ngi nuyu jaagar jaagar sama doomu ndey suma xarit parce que combat bi daf ci sonn ànd ak man voyage dem fu nekk jot mënuma ko woon jot sax gërëm waaw maa ngi sant ki ñu abal fii tamit xam nga mbër bu ci kanamee bu ñuy daaneel di nga sant nañ nekk ci waxtaan bi. waaw kon kon mooy loolu waaye mais nag ki ñu abal fii nii xam nga yoon la balaa ñuy tijj sax moom la ñu njëkk a tijjee. ci kanam di ñëw ci loolu. waaw. waaw bu loolu weesoo tamit jamono yi ñu génn gis nga ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 euh, ñu daat koy jubale ak ku ci mel ni ay ñoom Elton ñoom fils de Balla waa école de lutte Balla Gaye de manière générale ñu daal leen yóbbu foofu yow sax gis na la ci image donc geste boobu nga am ten tey am na ñu bari daat koy euh, rafetlu yow nan nga ko gisee. waaw geste boobu noonu am ah kër gi moo amoon problème rek kër gu ne day am problème moo amoon problème kër gi waxtaan nañ juboo nañ. te borom kër gi nekk tamit nit koo xamante ni nit koo xamante ni moom fi mu toll nii jaaxal naa lay tëddee muy Balla Gaye 2 yàlla def keroog bi wax ji guddul sax close la def wax ji jug ñëpp ku ci nekk mu teg la fi nga war a tegu mu nekk geste boo xamante ni geste noble la noobul noonu lay def Balla Gaye ñun ñu ndey ñu bàyyi mais yàlla moo def mu jiite ñu loolu kenn mënu ko bañ képp koo xamante ni yaa ngi géejawaay si ginnaaw Balla Gaye ngay topp yàlla na ko yàlla yokk mu nekk koo xamante ni jëlaat roi des arènes indi ko géejawaay yàlla mooy def njiit te ñun nangu nañ njiit boobu njiit Balla Gaye jiitañu man xam naa Elton xam naa lees xam naa Balla Gaye de ku si nekk xam naa li soxol waaw yàlla nag moom moo jiital nit parce que bi ñuy dem ñun ñëpp la kenn xamul woon kan la yàlla def Balla Gaye génn doon pee loolu nag ñun ñëpp nangul nañ ko xam naa lees nangul na ko Elton nangul ñun ñëpp nangul nañ ko ko te Balla Gaye de tamit nag position bi mu taxawee fu mu toy nii xam naa ne màgg na parce que tamit xam nga keroog dafa def geste noble boo xamante ni loolu ren nit ku baax def waaw noonu la demee wax ji bàyyil jaru muy gudd jaru nit ñi dañoo commencé di wax mu ne hee jug ñëw def lu mu war a def mu nekk lu rafet. maa ngi koy ñaanal Balla Gaye 2 yàlla ko yàlla kartanal may ko doole ju mu jëlewaatee roi bi ci kàttanu yàlla waaw loolu laa koy ñaanal. kon doon na geste boo xamante ne rafet na te aussi ki nga xamante ni mooy Balla Gaye 2 joué na ci rôle bu am solo. Mhm. Pape Mama tamit nekk nit koo xamante ni nit ku baax la. parce que tamit xam nga chaque jour rek mi ngi xool nu mu naay si mu di ko def chaque jour mi ngi xool nu mu rafetee mu di ko def Pape Mamadou nit ku baax la maa ngi sant tamit champion yi ku ci mel ni Guy gi ku ci mel ni Abdou juuf ku ci mel ni Lirou Diane ku ci mel ni mbër yu bëri mbër yëpp daal maa leen sant di leen ñaanal yàlla na leen cat seexlu parce que tamit xam nga làmb moo toll foo xamante ni géejawaay isaam lu ma lax ni meloon ñoom ñaar ni ni géejawaay meloon dafa war a delluwaat noonu muy lan géejawaay dañoo manqué woon nekk benn. si ñëpp ci ñun lañ gise woon booloo ñëpp ci ñun lañ gise woon jàppalante mais kon géejawaay ngalawaay yàlla na leen yàlla jàppale bañ mel comme ni ñu meloon ba lu ñu songu daan ko ci kàttanu yàlla waaw mu doon lu rafet comme ni koy un geste à saluer à magnifier à sa juste valeur parce qu'il est temps de mettre un terme à tous ces rumeurs et ces, propos calomnieux qui ont serpenté ces différents entre leaders de Guédiawaye mais je suis là et à l'union des cœurs et des esprits afin que tout fils de Guédiawaye puisse parler le même langage parce que défendant la même couleur mais je aussi évoluant sous la même bannière aujourd'hui Dieu merci la paix est revenue l'harmonie la cohésion et la stabilité règnent entre ces champions aborigènes de Guédiawaye mu donnons lu donc comme nous n'y ay doomu Guédiawaye champions du défendre li nga xamante ne mooy même couleur di couleur du géej waaye yaakaar naa ne kon loolu rafetal rek moo ci am solo mbër bu loolu weesoo am na loo xamante ne mënoo cee ñàkk wax muy. di encouragé papa booy jinne na combat bi mu jóge di ko wax ni ko yoon bu jeexusul waaxusul du jeex waaw na góorgóorlu xam ne làmb ji am na si cër soo demee làmb boo taxee ñëpp di la dëkk sant yàlla na xam ne làmb jeexul làmb ngi si kanamam xale bu ndaw la. na ñëw na waat ñëw summi waat xam mooy loolu yàlla mayaat ko combat mu am si ndam. parce que làmb moom xama du biir rey xëy wasin waaw noonu la fa demee. waaw ah, mbër bu loolu weesoo ñu daan ñëw fekk la aussi ak sa rak mu naan sa confident orca ñu koy woo aussi mbaytin numéro 2 eh, yéen ñaar ban genre relation ngeen seq. non man magu mbër yëpp la magu mbër yëpp la mais man sama taaw ki ma ko tuddee ki ma tuddee sama taaw bëy di xama bëy di yaayam laa tuddee suma taaw hmm? bëy di suma xarit la bëy di mbokk orca la. pourquoi yalla def ñuy and ta xamuñu xaw ma ko woon léegi bu ma ba ba xam yoy yep ma xam ne kii suma ma su ma la su la yoon la man ma jappale ko mu ñew diko jappale mais man mbër yep la jappale mbëru géejawaay yépp su suma su xarit lañ suma rak lañ ku ma dajeel cër nga ma jox aw mu benn mbeur xaar ma yalla te ñaanuma yalla am ak benn mbeur xaar ma yalla ki nak suma rak la di and ak man luma mën ak luma mënu dina wax def ci mom pour ñu déggu te bu soobe yàlla dinañ ko dégg waaw maa ngi ñaan yàlla yàlla na def mu raw ma ci làmb fuuf fuuf fuuf bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu laa koy ñaanal. am mbër kàddu yi am na solo léegi sa kàddu gu mujj lan ngay tàggatoo. waaw sama kàddu gu mujj mooy xam nga di wax ni mbëru géejawaay yi nañ gën a booloo rek parce que àdduna moom xam nga ku mën a yàqal nit yokk sa bopp fii kenn mënu yàqal kenn ku mën a nit yokk sa bopp mbëru géejawaay yi bokk leen ndey bokk ñepp and bu combat amé open press am ñepp tew ñew comme niko guuy gi di defé lu nice la niko abdou diouf defé lu nice niko liru jaan di defé balla gay de diko def kenen ak kenen diko def mbeur yépp na ñew genn ñew japp ci combat bi di japp ci combat mbeur yi ndaw yi parce que lool rek mo fi am ay mbeur ay duuba la sa fi nekkon jugé fi ñeneen nekk fi ñoo fi jugé fi ñun ñu nekk fi ñun ñoo fi jóge ñeneen ñew kon na rafet man lool la gis mbeuru géeja way bolo nak moy doole gis nga biñ bolo léegi da suñ mafia kara billah wala ñepp ci beure daan ñepp beure daan mais kon na bolo yalla mom moko bëgg bolo bu amé rek yalla def ci yermande kon yalla ñu yalla sutural jubóole ñu ba nga xamanteni ku ci nekk rek fu nga bëgg egg sa lamb yalla la fa yalla eggale ci yalla man de su fekke man ma baña egg fenn mbeur yep egg kon yalla na ma yàlla bañ egg la fenn ñepp egg ci kàttanu yalla parce que lool lay ñaan lool mo nekk sama xol. legi mën nga sante ñu dogo a buur waxtaan bi. waa li may sante damay sant Tafa Diop su ma su nijaay la suma mbokk la suma xarit la suma lepp la li dama bëgg nga teg combat bi ni daf ci daj lu ne yëkëti ay xaalis bari jox ma yàpp mu jëkëti ñaari xar jox ma ah, regroupement bi nekk nit koo xamante suma xarit la suma lépp la di ma jàppale maa ngi koy ñaanal lépp loo xamante ni mën na ko ren yàlla na ko mën déwén ku ci mel ni jiyee maa ngi koy sant du gërëm parce que combat bi jàpp na ci ku ci mel ne fuuta maa ngi koy sant di gërëm ku ci mel ne di jaw béy di koy sant di gërëm ku mel ne jaw mais dafa am ñaar ñoo xamante ni bi ma dalee bëri ba léegi ñoo may sotti gàllaaj muy saada ak mbay man nee saada mooy suma papa xaadim mbay mooy suma yaay parce que andang dañuy ànd ak man xooluñu lu ma am xooluñu lu ma ñàkk dañuy ànd ak man te yàlla tax saada maa ngi koy jaale jarbaatam bi nga xamante ni moo fi jóge woon moo fi moo fi moo fi gaañu fan yële passé di ko jaale yàlla na ko yàlla may leneen lu lu yàlla na koy yàlla nañ ko ko yeex a yàlla na yàlla nañu ko yeex a fay yàlla na ko yàlla suturaal may ko keneen koo xamante xama kuy toog la ci kàttanu yàlla waaw sama xol nag moo fees ba ma wax waaw waa Géejawaay gépp maa leen sant waa yeewu de waa kocc jaxaay bokk jom diisoo euh, gone tay équipe yëpp maa leen sant di leen gërëm parce que équipe yëpp su may gaay lañ di sant ki ñu abal fii waaw ki ñu abal fii nekk booy boo xam suma xarit la moo ñu ñoo leen def émission bi fii waaw waaw kàddu yi am na solo bokk internet mu doon noon waxtaan bu am solo bi nga xam te ne séq nañ ko ak Boy Niang comme ni mu leen ko waxee woon euh, dina wax ak benn franchise doon nit ku direct te amul let loo xam te ne di wax doonoon na waxtaan bu am solo donc leen sant di leen gërëm rek une discussion pleine d'enseignement comme ni euh, di leen gërëm di sant aussi ki nga xam te ne mooy suma technicien lootu didacte bekk ay kundoo la